ختاما بك دوينا mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi bi nga xamante ni moo jëm ci màggalu Kazu Rajab ñu taxaw ak Serigne Ahmadou Bamba Seck muy borom xam-xam bu sell ñu rafetlu xam-xamam loolu fas yéene koo dékk suñ micro rek mu laabire ñu tuuti ci li nga xamante ne mooy màggalu Kazu Rajab ndax day mel na ñu ci bëri nañ dëgg dëgg dëgg dëgg solo si day mel ni ñu ci bëri dañ ko askanale yoonu murit waaye Kazu Rajab bis la boo xamante ni ahlul islam ñëpp ñun ñoo ko bokk jot na yal na ñu xam dëgg dëgg dëgg rek lan mooy kon Serigne Ahmadou Bamba Seck foofu lañ lay dékkee suñu micro nga eh, faram-fàcceel ñu tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy màggalu Kazu Rajab aouzu billahi mina shaytaani rajiim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaar ci bis bu sell bi bisu islam umma islam yi yëpp bokk ko muy bisum mbégte lan moo tax ma ne bisum mbégte la ndax bu ñu xoolee période bi nga xam ne ci la isra ak miraaj am ci jamono jooju Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu doon xool ci daawa bi ci woote bi muy woote jamono jooju bokk na ci jamono ji ci ci jamono jooju ñaar ñi nga xam ne ñoo ëppoon doole ci màkk doon ko protégé suñ borom da leen faa jëlee muy Abu Talib muy Seydatna Xadija radiyallahu anha ci jamono jooju métti wi ci saxaaba yi métti na yéefar ëpp doole commencé not saxaaba yi mu metti lool yonent bi salaa salaam génn dem Makka génn dem Taif bi demee Taif ñu sonal ko fa sànni fa ay xeer mu ñibbisiwaat xamul fan la jëm jaaxle waaye nag li def mooy dafa yëkkati ay loxoom dénk ko suñu borom subhanahu wa taala daal koy moo tax suñu xoolee aaya bi nga xam ne moo wàcc ci ci al isra wal mi'raj subhaanallazi asra bi abdihi laylan samiix la kon dafa suñ borom tëjee ah, samiix mooy sama kat dégg na fi nga nekk instant bi aussi mi ngi gis li nga xam ni moom nga dund mu mel ni ci isra ak mi'raaj dafa ñëw indi benn mbégte mbégte ban la indi mooy imaginer ku nekk ci naqar jaaxle ci zaahir laa ko mën a waxee parce que pour mën a leeral yonent saa sam ci jamono jooju ci tiis la nekkoon parce que euh, ñi nga xam ne ñoo gënoon sës ci moom muy Abu Talib ak Khadija radiyallahu anha kenn nekkatu fa saxaaba yi nga fa bëggoon a taxawal lislaam saxaaba yi amuñu woon doole ñu ngi leen di sonal kon mu mel ni dafa xaw a jaaxle ci jamono jooju ba sax ci siira noonu nga ko tëddee atum jaaxle ma subhaanahu wa taala ni ko kaay da jaaxle waaye dinaa la woon fi nga nekk aussi dinaa la woon poids bi nga am dinaa la woon fi la ñëpp teg dinaa la woon aussi fi ma la teg man yëkkati ko ni ko kaay moo tax bu ñu gisee ci aaya bi lu mu commencé subhaanallazi asra lan moo tax neewul allah lan moo tax neewul alxakim lan moo tax neewul gafuur mais mu ni subhaana foofu li ñu fi mën a jàngate mooy mbir mi daa yéeme daa yéeme ndax xam na ni yonent saasam su ko waxee dina jaaxal ñëpp ndax loo xam ne ay weer ay ay weer lañ ko daan dox bu dikkee ni leen ci guddi gu gàtt def naa ko ci dina leen jaaxal moo tax mu ni subhaana kon yàlla moo njëkk a protéger yonent saasam moom moo ko njëkk a jox ma moom moo njëkk a convaincre doomu aadama yi ni leen kat xamal leen kat kii li muy wax lu am la moo tax mu ni subhaana lazi asra bi abdihi néewul bi muhammad mais bi abdihi la wax ci jaamam bi foofu li ñu fiy jàng mooy étape bi maanaam jaam bi martaba doole mu am ko mooy mu nekk abdullah mu nekk jaamu yàlla moo tax Serigne Touba radiyallahu taala anhu daanaka moo doon martaba bi gën a kawe ci moom inni abdullahi jalla wa xadim lil mustafa lazi atalahu yarum yaqulu al abdul xadimu ahmad da gis ni kon abdu googu Serigne Touba da koo muy étape bi ëpp doole moo tax yonent salaasam aussi bi ko suñ borom dee woon martabaam abdu la ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais abdu la wax kon dañuy gis ni kooku martaba bu ama ama doole la asra bi abdihi laylan mina masjidil haram foofu tamit dinaa taxaw parce que masjidul la wax la tax néewul Makka mu ni masjidul xaraam loolu li ñu fiy jàngate mooy inna awwala baytin wadi'a linnaas lallazi bi bakkata mubaarak masjidul xaraam moo jiitu Màkka <laughs> kon parce que moom mooy awwalu awwalu bayt bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw mooy néeg bi njëkk ci kaw ci kaw suuf kon moo tax mu ni asra bi abdihi laylan mina masjidul xaraam masjidul aqsa ci jamono jooju est-ce que mën nañ masjid te l'islam daanaka taxawagul woon ci jamono jooju ban ban koy inauguré ba muy nekk jàkka waaye li tax ñu koy tuddee masjid kon fi barab boo xam ni sujjoot am na fa dañ koy tuddee masjid kon sayyidatuna Maryam sujjootoon na fa ñeneen sujjootoon na moo tax ma ni mina masjid xaam ilal masjid aqsa kon sujjoot am na foofu moo tax jëlee ko masjid mais laneen li nga xam ne aussi tamit euh, lu am doole la mooy foofu da koo tënk isra ak mi'raj bi ci aaya boobu euh, ci subhaanallahi asra bi abdi laylan da koo tënk indiwul détail mais boo demee ci euh, mi'raj bi nga xam ni fii dafa jóge fii ci baytul ci dem baytul maqdis mhm. foofu amul détail mhm. parce que liñ a xam doomu aadama yi suñ defee voyage mën nañ koo xam mhm. moo tax arxaan détail yu ko mais nag soo ñëwee ci wan nañ mi foofu dafa yaatal wan nañ mi isa hawa ma dala saahibuka ma gawa man in huwa illa wahyun yuha indi ay détail pourquoi parce que la fa xew ci malaul aala kenn mënu koo xam ku suñ borom xamal loolu moo waral ñaari aay boo gisee aay bi dafa tënk aay bi mu détaillé a a Euh, mën ngeen a xam la xew baytul maqdis mën ngeen a xam la fa xew laneen li ma bëgg a leeral mooy nee nañ yonent salaa salaam ci jamono jooju ci la ci la julli wàcc ci guddi googu bi mu àggee suñu borom mais ñëpp d'accord na ni ci ci ci ci siira mooy foofu noonu jiite na fa saxaaba yi euh, euh, jiite na fa yonent yi jiite na fa yonent yi lu mu leen jiite julli dañuy julli ci ci ci guddi googu la wàcc nan lañ mën a déggee loolu ni ñu mën a dégg loolu mooy julli moom suñ borom du ci ummatu Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam la ko la ko jagleel loolu mais lim ñu jagleel ñun mooy façon julli gi ñu ne bu ñu daan julli ñaar rakkaat la daan doon ci suba gi ak ñaar rakkaat ci ngoon si mais nag comme ni julli amee suba tisbaar takkusaan timis gee gee moom umatu Muhammad dong la ko yàlla jagleel aussi bi nekk ñaar rakka bi nekk ñeent bi nekk ñett loolu umatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc subhanahu wa taala moom la ko kon julli ci façon bii mu wàcce ci ci guddi gi la wàcce mais julli amoon na bu njëkk kon yooyu noonu ay ay jàngat la yu sew yoo xam ne faram-fàcce yu yoo xam ne jàpp naa ni na ci ñun umatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu xam ko muy li ma ci tënk mooy Isra ak Mi'raj jamono ji mu ñëwee mooy dafa ñëw ngir indi mbég ndax jamono jooj yonte salaasa mi ngi woon ci ci boo xam ne étape bu difficile la woon leneen li mooy subhanahu wa taala doo ko tuddee abd mooy étape bi nga xam ne aussi mooy cër bi nga xam ne moom la jaam di am muy cër bi ëpp doole ci àdduna mooy mu nekk abdullah moo doon Serigne Touba tuddee woon boppam leneen li nga xam ne tamit moom laay wax mooy masjidul haram masjidul aqsa fi nga xam ne fa la ko suñu borom teg leneen li mooy sërite bi mu ñu indil muy julli muy sërite boobu moo ëpp doole ci sërite lépp lu mënti doon ci aduna bu dul julli da lay wàcc natt asaka soo amul xaalis wàcc na la koor soo feebaree wàcc na la aj maa ko soo ko mënul wàcc na la mais julli du la mës a wàcc du la mës a wàcc kon da ngay gis ni kon muy sëriñ boo xam ne sëriñ bu am doole lool moo waral sëriñ baa xam gi ko xam ak fonk gi mu fonk suñu borom moo ko tax mu jaral ko mu julli ci géej gi mais julli ci géej gi pour man ci Serigne Touba du kiraama du kiraama mais fi ko suñ borom toll fi ko suñ borom toll ak fi mu toll sidna Muhammad sallallahu alayhi ndax mi ngi naan xaddi wi xaaya li rajuli Mustafa min chew ko may daxal aqraba kon da ngay gis ne Serigne Touba fi nga xam ne fa la tolloon sidna Muhammad sallallahu alayhi fi nga xam ne aussi fa la tolloon yàlla gëm ko ak taqwa mooy fas yéene borom ci benn ko بمن بسنارة الأباق جاردا والموز والإعتاق بك كما بك اعتدى العتاق بك دوينا ما له نساق صلى عليك الأكرم الخلاق